ñu ñëwoon teew see euh, sargal bi ñuy sargal xalé yi nga xamantene ci bac ñoo fi ëppal ay résultat xam nga baccalauréat ren bi bi ñu xoolee tëngëj Awa Fall bi nga xamantene ne taxaw sama wet moy la meilleure boursière maanaam euh, raaye bi ñu ko jox li tax mu gën ko mérité moy bi ñu ñi am bourse yépp am mention très bien ñett lañu ci ay jigen mom mo ne raw gaddu bi ah ñu joxalé yenen bourse yi ya nga xamantene xalé yi ñu ko jox dañu jàng bu baax mais ñu xool ne peut-être mën nañu am ay jafe-jafe si mbiru social ñu toftal leen si maam Awa Fall ñu topp si moom ñu jóge lycée Bargny jóge lycée moderne jóge lycée Camp Marchand euh, Abdoulaye Sadji di mooy voilà donc ce que nous sommes euh, loolu ñëwoon tey fekki see préfet si boppam toog na si fête bi ba fête bi jeex ndax ñun ñëpp dañu bëgg école yi école yi xam ne li tax ñu taxaw leen mooy ngir ñuy jàng bu baax bëgguñu dem ba ñi jàngax ñi jàngul di yem parce que bu ñu bàyyiwulee di feete bu ñu bàyyee di feete ñi nga xam ne ñu jàng bu baax dañuy dafay mel ni école ñëpp ñi mën football ñi mën feccax yëpp yem te école yi bu ñu koy taxawal dëgg-dëgg li tax ñu taxawal ko mooy ngir jàng def résultat yu baax. dëgg-dëgg mën nañu wax ne semaine bi mooy semaine u excellence ndax ñun ñëpp xam nañ ne li ñuy wax concours général te monsieur le président de la république démb teewe fa ñu doon ko def. au théâtre national deug deug fête bobu wané né Sénégal ba bayi wuñu di top seni xalé yi nga dañu wara dañ leen wara sargal ndax ñi ñu wara sargal bu ñu leen sargarulee fa ñuy mujjé moy dañuy dem ba lepp bëgg di tolloo te lépp warul euh mbiru excellence nak du mbiru nation rek dafa nek mbiru département nek mbiru localité kep ku ne fa nga fété bo gisé ño xamné dañu leen wara delo delloo nañ leen delo njukkal parce que dana tax ñi nga xam ne ñoo ne si gannaaw ñu gën a euh, anduse dana tax ñiy góorgóorlu tam ñu continuer di góorgóorlu xam ngeen ñaar fukki at ak benn bu fekkee ne Sococim mu ngi dimbali ay xale yoo xam ne li mu leen di jox daf koy tàmbali si at mu njëkk université ba ñu dem ba master ba sax ñu dem ba doctorat loolu bu ngeen ko tënkee si alal alal bu takku la donc mën nañu jàpp ne fondation Sococim et la Sococim industrie wax dëgg yàlla li ñuy def. dayo bi sax mënuñu ko natt ndax ñi nga xam ne ñu ngi leen di dimbali tey am na ay docteur am na ay ingénieur am na xeetu xam-xam bu ne boo xam ne mu ngi dellu si di jariñ réew mi donc dañuy encourager fondation bi di leen wax ne nag bourse yi bu ñu ko mënee yaatal ba mu demaat si góor ñi mu nekk meilleure bourse ku góor ki dàq jàng ak bourse ku jigéen ki dàq jàng bu bés ba ñoo xam ne góor ñi itam ñu leen a fàtte. ah kontaan naa trop kontaan naa parce que bu leen neexoon mën nañ ko bañ a def mais ñëw nañ taxawuñu célébrer ñu.